register si sa mita bi waaw mun nga see register bi ñaari mita soo soo registré sa mita gi ba pare hmm. dangaa xayma ñaata nga bugg a jënda nga yónnee ko si tri tri tri dégg su fekkee ne nag kiw power scratch card bi nga amee danga xoos pin bi nga yónnee ko ñu yónnee la sa kóot nga lóot ko am sa kas sa lampataal sa télé taal sa kër taal <laughs> xam nga kon gaawal nga dem dugal a dugalal nekk si gaaw gàncax gi. waaw li ma di toog <laughs> xam nga nag li ma di ki kiwsel daal moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu waaye kiwsel moo di bakkan ku ko ñàkk dootul ñandu. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyooti di leen sargal ci programme bi mu di ñu ne nen la eh, di leen ci dalal ak jàmm bés bu ay bele gisoon ngeen waxtaan wu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko jëlee woon kër Paate Kore mu aju ci bunta bi nga xam ne dinañ koy waajalee jigéen ji eh, balaa dugg ci néegi muy lu ama am solo eh, ñu gis ne nag ñu ko xaw a nasaxal waxtaan wi nag jeexutoon ñu digoon leen ne tey buñ fi dellu ci programme yi ñu ne neen la nañ ko jëlee fa nga xam ne foofa lañ ko emale woon bon nag ngeen toppaat ñu fii ci kër Paate sëy bu njëkk man jalee ko man sama bopp su ma xam naa ko de waaye xuti huma ko su ma ñaareel xuti huma ko léegi nag sëy comme lii suñ kansolo bi fi waxoon fii léegi si gannaaw dangaay too gis nit fële sa ci yow kii gis fële ngeen boole dox daje waaye sëy bu njëkk ba ma doo cosaan nga xam ne sey daf daan am dañ daan toog rek ñu ne la diw kaay seeti diw wala naa la takkal diw nga jog dem ñu takkal ko may la ko isil ko yow sa dërëm doo sa xam dara doo ko sa xam yëpp sa kilifa moo ko daan def ba nga jël jabar ji man def naa ko du benn du ñaar dafa am benn jigéen bu wax fii ne sëy yu bëri ah, ci am problème si denckat bi la dëgg la denckat bi moom leen indi dajale leen moom moo war a emale ñëpp waaye nag ah amale yombut de yàlla emalewut da nga ñëwaat foofu yemale yombut yàlla wut waaye xam nga lan moo garaaw boo ñëwee ci kii xaskale loolu gars yi dañ koy def trop yàggaleel dégg ma yemale yombul ki baax si yow man ngaa baax si moom si suuf doo mën a baax si moom xëy na sax c'est ñu indi histoire waaye ki baax si yow nag yow war ngaa mën a baax si moom si suuf moo tax ma ne MLA yombut parce que yow soo dencee ñeenti jabar ah kenn ku ne da xëy si yow da gont si yow kenn ku ne waroon loolu waroon ko xëy si yow gont si yow kii xëy ne si soxlaam ne si la war a def ne si mat ba kële moom ngaa seet yow foo war a ndékkee ak foo war a añee ak ñaata nga xam ak moom lu mu amoon mu dumbale la si. ndax wax dëgg yàlla yonent ba bu ñu juree doom yàlla sax du leen xamale kon man danaa laa mën a xamale ah kon nag yëf yi mu ngi si góor ñi waaye mu ngi si jigéen ñi ba pare itim mu ne xaawa yi defuñ leen xaawa moo deful boppam man tey suma xaaw tey bu mu toogoon bu guddi mu ne buy ñëw suma néeg dafay nëbbu da làqu da seet fu muy war a jaar ak lan sëy du lool sëy boo sa ayee yow yaa ayee soo ayee ba jant bi so ba sa ëllëg sa xam ruus doom bi fa juddoo itam xam nañ ne da nga am kii suma baay ak suma yaay la lii ci nekk nga jaar su da nga am li nga war a jaar ak ñoom keneen ki ñëw jaar noo keneen ki ñëw jaar ak waaye fu mu nekk nii tey nga am fanweeri at wala ñeen fukki at ne man bala ni nga ne nag léegi nag nañ def ne yow du la mag te yow nga ne mag nga magal sa bopp léegi kon na la. waa xam nga xam nga boo see ndaw si mu ne ci ñuy denc la da ngay am sa aawo yàgg ak moom lool gis keneen ci biti bu nga koy takka am nga ci droit mun nga koy takk mun nga am benn ñeent waa li ñuy wax mooy da ngay gis kooka na ko man nag boo gisee ma ñëw ci yow su ma bi baaxut wala munul togga wala setul wala njaboot gi nii la ñuy def dañuy sawlal fekk njaboot gi yéen a ko bokka su fekkee da uti jabar da tapale pour bëgg ko la nopp ah su ñëwee gis ne la nga wax amul fen ñëw na yàlla na ma yàlla waxul maa wax noonu parce que maa ngi si foog naa rajo dégg nga kon mburu ma waxee fen dégg nga waaye kon wax lu amu na boo nga roofee tim su ñëwee xalaal ja taxut dafay jeex bu boobaa yàqu-yàqu lay jur ñun yàlla moo ñu sédd ba ñeenti jabar benn ñaar ñett ñeent man romb naa sax dégg nga ok waaye kenn ku ne tey ngay ut jabar dem si moom te yàlla boole leen nga xam ne da nga farata si yàlla ak sunu su Muhammad ci nga uti si moom nga ñëw indi ko su ñëwee ak keneen ku mu fekk si xam ne moom itam loolu ko fi indiwoon ñoom ñëpp dinañ mën a ànd dinañ nekk benn yow seen bopp yow doo am benn firnde seen diggante foo dem tëdd nelaw fu sa foo dem rek da nga tëdd nelaw parce que dinaa xam ne lu ma bàyyi suma kër sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin su ma demee jàmm rek laa faa fekk kon loolu man mooy wax bi sa départ ba mooy la ma waxoon rek sa départ ba ku gën si yow rek nga gën si moom ku baax si yow nga baax si moom ku bon si yow itam nag doo mën a bon si moom waaye da nga xam foo mën a jaar nag soxna si nga baal maa ko waaw. li ngeen wax ci diggante góor ak jabaram ndax comme ni ko Mamadou waxee rek ndax yow bu fekkee ne yow jigéen sa boroom kër dafa laa gis bëgg la takk la ci fartas yàlla ak sunas Muhammad dellu gisaat sa morom ba muy ñeent léegi ñu ne dangaa ñëw léegi topp seet bi bàyyi aaw bi man d'accorduma ci loolu ndax kenn ku ne yaa ko sa bopp bëgg ko mu bëgg la nga takk ko andi ko ci kër gi kon su soo demee ba ñoom nga am koo ci gënale comme ni ko Mamoud waxee yàlla ki ñu bind sax yemalewut ndax yàlla dafa maa bind bind Mamoud Dramé sant Mamoud Dramé mu jaamu yàlla man mu sant ma ma jaamu yàlla Mamoud di jaamu yàlla man ma lànk bañ a jaamu yàlla ëllëg Mamoud faatu dem ajana man ma faatu dem sawara ñu ne yàlla lu tax kenn ku ne kii dem sawara kii dem ajana fekk na kii dafa jëfawoon ndigal bàyyi tere man jëfawuma ndigal bàyyi bàyyiwuma tere jabarit noonu la mel parce que boo dajalee ay jigéen ci kër ñëpp ñoo yem ci yow buy dem taggu la soo ko teree mu toog lu mu am jox la kii buy dem du la taggu mbaa boo ko boo ko boo ko teree mu ne la boo ma bawut boo ma dinaa dem doo leen ma sa mën jërëjëf mbir mi dafa mel ni kenn amul tontu li ndax yéen ay léeg-léeg mbir yi ni moo xewee dafa wuute waaye li wóor mooy li ñoo wax ngenale gënale ci biir néeg bi ñun liñ ci bañ mooy li olof yi di wax ne ki nga xam ne daf la bugga te buggantuwu la loo ko munti defalit du ko gis ngir mbëggeel ki la bañ te bañantuwu la loo ko munti defalit du ko gis ngir mbañeel gi liñ war a xam mooy sëy jaamu yàlla la yàlla moo ñu ko sant te it du right ne par man dama war a am ñaari jabar déedéet ñaari jabar yàlla ko dogal nga mun ko nga uut ko waaye mun ngaa yem ci benn waaye bu la yàlla nattoo ñaar mun ngaa am ñaar ñett ba ñeneent léegi bu yàlla nattoo ci ñaar ñett ba ñeneent nag danga war a toogaat seetaat sa bopp bu baax xam ne man nag ci mbir laa dugga ndax ni jabar jëkkër mun a yóbboo jabar àjjana jëkkër jabar mun naa yóbbu jëkkër safara ndax wax nañ ne koo xam ne jéng nga ci sa sëy booy dekk ci sa bàmmeel danga jéng kon ñu xam ne yàlla bu gën a yemale foofu buñ ne yemale nag du ne rek ki nga xam ne jabar ju njool la war a sol juróom-ñetti meetar nga am jabar ju gàtt war a sol ñaari meetar soo jënd da nga war a jënd juróom-ñetti meetar pour ñoom ñaar déedéet loolu du yemale ki sol juróom-ñett jëndal ko juróom-ñett ki moom ñeneen jox ko ñeneen li ma ci jublu mooy bu dara desul lu dul yéen a ngi ci biir kër gi yéen a ngi ci biir néeg bi nag dafa am yow góor gi lu la war ci diggante jabar yi nga xam ne moom nga denca kii mun naa woyal soo jox la nga naan. kële xëj na amul njëgi soow waru la tax ki amul njëgi soow nga dóoree ko yari kii jox na ma soow kii joxuma soow ndax am-am yi du ut dafa wuute léeg nga am jabar joo xam ne dafa am gannaaw am ay càmmeñ yoo xam ne ñu ngi koo dimbale am ay rakka yoo xam ne ñu ngi koo dimbale am yaay yoo xam ne xëj na loxoom jot na gannaaw wala lim am bariwul wala lim am sax bu bariwul sax xëj na doom jooja mooy nattoom ba lu mu for dina ko ne am yóbbul sa néeg loolu daf ñoo dal ñu ngi am yaay boo xam ne <laughs> luñ ko jox rek <laughs> am na fu ko joxe danga wax ba sonn na waaye dara koo koy nattoom léeg-léeg daf dee am ci biir néeg bi su ko defee nag yow mi góor gi dafa jar nga bàyyi xel bu baax xëj na nit am na yéene def te manut nga suuraale